di taalibeb sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppeeb sëriñ Mbacke moom maam soxna loo Jóob Taif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa su nekk te di ko mu yàgg fi te amin tey roy Cheikh Abdou ci dëgg radiyallahu taala anhu bokk jullit yi gannaaw bañu ñu leen nuyoo bokki taalibe yi noo ngi amaan mbégte di santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey sunu cofeel ci seexul xadim ak sunu njëbbal bi ñu yàlla mayee nu mën toogaat di waxtaan ak yéen ci ñaar fukki waxtaan ak juróom-ñaar ci weeru safar ngir fàttalante tey fàttaliku ndax dana jëriñ aji fàtte ji mu nekkoon luñ sumboon di ko waajale bis bii nga xam ne moom lañu ñu weesu muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nga xam ne bis la boo xam ne boo ak seen murit yépp seen yitte ji ci lañ koy def ngir bégle sëñ Tuubaa ci sant googu mu wote te liggéey boobu yi ba mu koy liggéey wet na ca tuuma ju ne topp na ko ci muñ gu yit muñ na ko ci muñ gu ne muñ na ko ci waaye ngëm-ngëm gu mat sëkk ak li nga xam ne mooy yéeneem muy yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas na ko cee doxe ba mat sëkk loola di mbégteem jullit yépp waaye di mbégteem nit ku ñuul waaye di mbégteem islaam loola tax nag ñu koy fàttaliku di ci dàggiku ngir sunu cofeel mën a yaatu lool ci sëñ Tuubaa ba liggéey bii nga xam ne site na ña nga xam ne ñoo ko ko war a defal ba digle yeen ca ak pay ñu mën a bokk ca ñooña ci dëkkam bii nga xam ne mooy Tuubaa nga xam ne nee na moom a gënal dëkk yépp gannaaw madinatul munawar waaye yàlla na too ko juróom-ñaari at képp la ko fi may mu dëkk fi fanweeri at ak ñaar jàpp ñett tegeetu fi tànkam bi nii ñu ko fi indee loola nag la ko ko teg mooy ak jaayante jaayante koogee mu jaayante nag nit da ko mës te jaayante ba réussir ko ndax lañ ca tege pour loola am kuñ ko mas sa teg ku nekk gannaaw ba nga jaayantee boo doxee tuuti rek gis na yow lii mënuloo ko def yónnent bi sax junjoon na ko ko nag waaye moom dana ko daal roogi moom sakkuma ko ba xam lu ko lu ma àttan waaye ki ko sàkk daal bu ma ko mënee garanteel moom jom ji dana ko dékku jom joojee nag yaakaar naa ne tey ji mat na sëkk mu amoon lu mu fàgg woon nag gannaawam ndax xam ne nit du sax ci àddina te bëgg na liggéeyam bii nga xam ne sumb na ko mu teg ko ci loxo yu wóor yoo xam ne danañ ko mën a mottali loola tax na cité na ña nga xam ne ñoom ñoo koy mujje ñaan ci yàlla te yàlla lépp lu ko sëñ Tuubaa ñaan bala ko ko ñaan may na ko ba noppi wahab lana surriyatan tudiimu alxamala saaliha yaa xadim surriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu loolu moom ku amul ràññee amul gis ak xol bu set ak ak cofeel ci seexul xadim ñaan ko moom wóor na la ne yàlla nangu la moo tax ay mbiram di gën a jëm kaw tusur ku koy wutalub àpp doo ko fekk moo tax dara jaam jooji nag yëkkati gi ko yàlla di yëkkati ak njariñ yi ko suñu borom di jëriñ saa su nekk mu ko koy yokkal ba tax na loole mu am yéene ñu dugg ci biir dugg googee moom mu dëgg dugal ci biir nag moo tax mu sant ñu ab liggéey te liggéey boobu mooy dëkkam bii di Touba digg na ci lu nekk di tudd Touba digg na fi lu nekkit di tudd Touba li ko fi gën a ñor nag mooy daara yu fi sax di jàngale alxuraan téere suñ borom ak barab bi jaamukaayu yàlla yi ñuy mën a jaamoo yàlla daf koo ñaan sax ba wax ne na ko ko may wala moo ngi ko koy ñaan ca daraja yi madinatul munawwara ak kaaba ga waccaxal bihi daariya kalmadina la wax barakatan wa kaabatan massuuna liggéey boobu fu ne tudd na ko fa ba wax ba wax ne ña nga xam ne day gëm nañ tey rafetal ñi nga xam ne gëm nañ tey rafetal boo liggéey tuubaa gii nga xam ne mooy àjjana dana leen ñeel ci loolu nag lay tax mu ñeel leen mooy dañ may liggéeyal wala ñu sopp ma wala ñu jox ma àddiyam allazina amanu wa amilu saalihaati tuubaa lahum wa wasnul maab wax na ko ak tuuba li xabdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat yooyu yépp nag ba mu ko ñaanee dafa am lu mu leen ca tegal nag na ña nangu loola def yow suñu boroom ña sax ci dima ma liggéeyal na leen defal lépp lu ñuy sàkkoote ci lu baax nga defal leen ko loola ba mu ko waxee te wax di xawaa iyal la siina daamu fi xidmatin waxab lahum maaraam kon waxtaan wii nga xam ne moom lañu bëgg def muy ñaar fukkeel waxtaan ak juróom-ñaar te diggoon leen ko gannaaw ba ñu jógee ci ñaar fukkeel ba ak juróom-benn loolu mooy li ñu koy ubbee ngir liggéey boobu mu doon santaane dafa am kuréel gu jóg taxaw na ñoom ñoo fas yéene taxawe nangu ñaan googu sët yi nga xam ne tuddoo na leneen muy sët yu teey ak sët yi sax ci def lu baax ak liggéey te teg su na yonent bi it sët yooyu yàlla dogal na dugg nañ ci biir ñaan googu ñoom ñoo jiite kuréel googu ba ñu amee volontaire nag bëgg a liggéeyal sëñ Touba sëñ Touba xam ne li bëggoon ci dëkk bi kuréel gii ñoo koy mott li lan la yéen daa di sàkkal tur wu du toll taxaw mukk te lépp lu waay di liggéeyal sëñ Tuubaa xaj na ci kuréel googu muy Tuubaa ca kanam wax naa leen ne nag karam lépp lu ja nekk nga dox jëm ca xamal na yaa ngay dox jëm ca kanam waaye yàlla nañu yàlla musal nag di dox jëm gannaaw te loolu mooy arrière Tuubaa ca kanam kon kuréel la goo xam ne mu murid yi namoon nañ ko yàkkamti woon nañ ko ak sasuwaayam ndax murid yi toujours dañu am yéene la géel sëñ Tuubaa waaye la géel sëñ Tuubaa nag day am waxtu woo xam ne li fi yëg jotul yéene ju ne nit mën na ko ci def waaye sëñ bi moom bu tànnalee boppam ba teg kanam loola day dem moo tax yi fi jaar yépp ami gàllankoor jaar fi amee gàllankoor waaye li sëñ bi xëccal boppam moom du am gàllankoor moo xëccal boppam nag waa Tuubaa ca kanam ñaanal leen it dimbali leen dajale leen nag it sëtam yu tedd yooyu nga xam ne ci ñoom la kuréel gi sasoo muy sët yi ko fi jëkk a dëppoo ñaan gi ma leen waxoon ci njëlbeen wahab lana surriyatan tuddiimu alhamala saaliha yaa xadiimu ay sët it kere kere ko fekk fi xilaafa gi nga xam ne moom la sët yi njëkk a wutu sëñ Tuubaa kon loolu dana mën a dugg ci boppam murit bi wane ne kon li may wax man am naa ci islaay lu leer loo xam si ne sëñ Tuubaa ko tànnal boppam moom doo ngeen laa mas a gis murit yi ñu créé kuréel gu mel nii murit bu ne am yéene bokk ci moom laa mas a gis it murit yi jël seen doole jëpp def ci te naan kuréel gii daal moom nañ ko téye bu baax ndax moo ñu defee ci li nga xam ne mooy luñ mën a lëggéeyal sëñ Tuubaa muy ci réew mi ak ci bitim réew kuréel la ko xam ne si murit yi duñ ci tayyal mukk ñu wootee day fees dellu ndax la tax loola di am mooy li murid yi bëgg ñoom dañ cey nekk di laaj luñ man tey defuñ xam kon nag yàlla nañ daje ngërëmal sëñ Touba ci seen liggéey boobu ànd koog sëñ Mountakha Mbacké ak képp ku leen ko yéen wàllu investir bi nga xam ne ci lañ nekkoon nag depuis numéro 21 ba numéro 27 ba tey jeexagul. waaye nag dana am ak fàttali gu ma fàttali tuuti ci nit ñi seenu déggin ni muy amee ay lënt-lënt ci boo tegee programme lañuy ñuy daal di def rek mooy genn wàll gi bu ñu ko xalaatee ci seen xel jàpp ne mënta nekk ci ñoom rek dañ naan yàcc waaye duñ na yàcc waaye dañuy yem ci nag bëgg a taxaw nag yëkkati seen kàddu influencer nit ñi découragé leen waaye noonu de jàpp nañ na Touba lu fi taxaw lu nekk ñu jëmmalal ko fi yàlla war naa mën a nekk or donte kenn mësagul dox ba gis dëkk bopp dañuy tabax tabaxu or boo xam si lépp or la waaye ci xalaat ak yéene man jàpp naa ne barab bu ñu fiy defal yàlla ci turu sëñ Touba war nañ ko mën a def or waxuma laa nag lii nga xam ne ci àll àddina doom nga lay sasoo ko xam-xam te yooyu moom yëpp am nañ nit ñi ñàkk déggoo nag moom am na waaye booy liggéeyal yàlla da nga dul tàyyi ci di wax ak jëf ndax woote ñëpp wuy si moom na ko bëggee moom loolu moom taxawul sax diine ndax woote Seydina Muhammad juróom-benn atam yi njëkk yaakaar naa am ci nit bëriwul. te mbooloo moo nekkoon ci réew ma kon yoonu yàlla moo mel noonu boo ciy woote day yéex kon liggéey bi sëñ tubaab it noonu dong la mel bu kenn di wax ne lii mënta am walla lii nangam ak nangam mbir kenn du tëb tëb na ci cabax waaye ko am yéene dal baasin moom jàng kamilu alxuraan bi mooy sa pas-pas jàng kamil bi nag mënoo tëb tëb def ko ci baasin nga koy tàmbalee ak bismillaahi rahmaani rahim taqale faatiha tàmbalee ko ci suuf jëm ca kaw ba keroog ngay wàccee kaamil bi bind ko boo ko bindee nag ba noppi boobaa na nga am nag lu complet waaye bu fekkee ni daal dal baas yi ñu ne kaamil bi la bëgg a jàng ñu ne mënta nekk loolu day décourager loo nit kon li ma bëgg a wax mooy dugal naa ay machine yoo xam ne day bay gerte ci anam bu jéggi dayoo capturé ko ci YouTube bi wàccee ko monté ko dugal ko am ci ñooñ gis gañ ko gis ñoom jàpp nañ ne lii du mës a am ci àddina ñàkk gam ñàkkam ga ñàkk ne mënta am ci àddina buñ ko jëfoon ci seeni xel dong yam ca du am problème waaye nag bëgg a prononcé wu naan lii mel na da ngay bëgg a critiquer kii wax moom loolu ci yàq dong laa ko mën a jàppe waaye amul lu mënta am ci àddina ndax sëñ Touba mii gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk muy ñëw ko waxoon ne tey jii ku mën a remplacer yonent bi di ko liggéeyal di dox lam doon dox di wax lam doon wax mën naa am nii ñu gisee lii dong lañ ko gisee nan mënta am waaye ba sëñ Touba ñëwee moom ñëpp xam nañ ne mooy xaadimu rasul lu yonent nag waaye mooy xaadimu rasul kon it lépp lu ñuy xalaat ci lu baax te yàlla di ko jox aw askan te koy jaare ñu koy jaare ci xam-xam ak alal jàpp leen tuubaa gi kenn waru ko ko ëppale kon tuubaa ci kanam yéen na ngeen gëm loolu te xam fi may waxe nag ngeen di déglu waxtaan wi benn par benn te bañ di décortiquer maanaam jékki-jékki rek kenn dagg ca laa nga a ah kii nangam nangam nangam bu ngeen ko sobentalee rek du ngeen ci mën a jariñu te am yéene ji jariñu ci moo tax may wax loolu léegi ñëw nañ ci projet yi ñëw nañ ci wàllu élevage ñëw nañ ci wàll commerce commerce yaatu na alimentaire ak lu mel ne lu jëm ci wàllu batiment yooyu yépp ñëw nañ ci waaye bii ñu ciy dolli nag ba tey gis nañ ne ñi ko occupé ci réew mi bari na rawatina ci tuubaay gii te lépp lu ngeen gis nit di ko def ci dëkk bi jàpp leen na bu ngeen dee mbooloo ci ngeen koy dàq ndax la kenn mën a def am ci milliard bu ngeen defee mbooloo ay milliards ngeen ci am xam nga am na ay machines yi segal yu ñu installé ci dëkk bi ay sénégalais yu am volontaire def ko fi fenn fu nañu def ko ci broq di jël gerte moo xam leen état jox moo xam lu ñu jëndal seen bopp yóbbu ko ci seen machines yi di ko nal di génnee diw yi di def ci bidon di jaayi bitig yi loolu bu ngeen ci duggoon yaakaar naa dana yomb lool ci yéen man ngeen a dem ba nekk ay ci ñi koy def ci réew mi te ëpp ci doole walla ngeen dem ba romb leen ba ñuy actionné ci yéen bu dëggee ni fekkoon Tuubaa gi tey ngeen installé fi seeni machine yu moderne nag yoo xam si yéen lu ngeen di def da ngeen di fexe ba wuute la ko yi fi nekk ndax waa yi dañuy segal siin waa yi dañuy segal siin machine yooyu xaalis dong nga lay jar bu ngeen mënee fexe ba dugal ko ci réew mi wutal ko barab yu am solo yu ngeen ko def da ngeen ko mën a segal ci façon boo xam ne du bokk ak nii ko nit ñi di defee su ko defee ñi ci liggéey da nga leen mën a fay fay gu wuteeg nit ñi di fay ndax da ngeen ci teg àq suñu borom ak àq dëkk bi ak orma ji tey bu ngeen fi installé woon tey machine par exemple ngeen installé fi lu toll ci cinquante machine ci départ gi koñ bu nekk am gerte xam ngeen or la. tey bu ngeen génnee woon tey cent millions teg ko fee ay ñaata trente tonnes gerte ngeen ci mën a am ñaata trente tonnes gerte ndax am na genn kilifa gu baax mën na maa tudd turam sax muy sëñ Moussa Massamba yàlla na ko yàlla doolu yërmaande kuy liggéey rek boo agsee ci moom mën nga cee jëlee exemple lim daan liggéey ci wàllu gerte muy lu sama bët bii tegu kenn xamu ni mu oto day taxaw 30 tonnes waxaale ñu ne ko nangami million la mu daal di génnee kaat fay million yi mu ca def bu ko jaayaatee dana ci am lu ko ëpp kon yéen bu ngeen ko jëlee bu ngeen jaayaatee am lu ko ëpp waaye su ngeen ko jëlee yóbbu ci seen machine segal yooyu it da ngeen ci amaat lu ëpp loola kon loo boobu secteur it da ngeen di am ñu ngeen fa délégué xam ne ñoom ñooy nekk ci côté boobu su ko defee tey bu ngeen débloqué lu toll ci cent millions wala lu ko ëpp li ngeen mën a am ci ay tonnage gerte fii ak yu ngeen di dem ci biir àll bi di ko jëndal seen bopp ak lépp lu ñuy bay lu mel na pepp lu mel na mboq lu mel na basaab da ngeen ci war a am ay stock yoo xam ne si bu ngeen ko jëlee euh, réformé wat ko defaral ko seen bopp da ngeen ci mën a amaat beneen produit wu bu bokkut ak jëmmi jooju bu ngeen ko jëlee teg ko ci marché bi di ko jaayit ci seeni palaas it da ngeen gis ne loolu da ngeen ci am recette boo xamee ne que nii dana leen permettre lépp lu ngeen bëgg a taxawal dootu leen taxaw ci kenn di ko laaj xaalis te yaakaar naa machine yooyu moom war ngeen ko mën am génnee cent millions deux cent millions yi yaakaar naa dara ci yéen fexe nag ba nekk ay opérateurs yu am solo ci dëkk bi teg ko ci yoon nga xam ne kuy jaayati gerte wala fépp fu ñuy jaayee gerte kenn du leen fa jiitu da ngeen di jënd seen camion yi bopp du ngeen luyee du ngeen def dara wut seeni support wut seeni emploi ñii dugg ci àll bi jënd ñii di teg ci oto yi di transport di indi ngeen wutal ko kayit yi ngeen ko war a wutal indi def ko ci seeni magasin bu ngeen di jaay ngeen di jaay bu ngeen di segal ngeen di segal loolu daal jàpp naa ne bu ngeen ci ko boolee ci li ma leen waxoon dangeen ci am résultat boo xam ne yaakaar naa mooy gën a gaaw laaj ndax laaj bi la ma waxoon ci njëlbeen rek looy tàmbali moom mën nga ko tàmbali ci laaj waaye su demee nag ba départ moom yéenay wut seeni moyens bopp yoo xam ne si du tax sax laaj bi nag waaye laaj bi laaj bi moom ku joxe ak ku joxewul du tax mukk liggéey bi taxaw ndax am na liggéey yoo xam ne si xaalis bu teew a ko mën a def waaye xaalis bu ñuy taxaw di xaar moom mënu koo def xaalis boo xam ne si day ñëw te matulit mënu koo def waaye xaalis bu teew mën na lu ne kon wàllu diw googu na ngeen ci bàyyi xel bu baax ndax ku wut ay magasin yooyu jaayee ab ceeb di ko jaayee aju ci biir ak ndawal la cay dem diw ga nga xam ne moom moom lay àndal te moo ci jiitu loola it kenn war leen ci jiitu ba tey rek maa ngi ci dépassé màggal ga bu nëgën di fekkaat nag lii ma leen di wax lépp ngeen taxaw ci ki yor alalam bëgg a berndeel ay ganam lu alal ji bari bari bari mën naa bañ a génn Touba lu mu soxla da ngeen ko koy jox sax ci façon bu bokkut ak bii nga xam ne moom la kon commerçant yi di def da mën a wut seen oto yi yoo xam ne képp ku ku contacté ak yéen ne nangam laa soxla ci tonal si ceeb nangam laa soxla ci diw mën naa fay te xaalis bi du tegu seen lox ndax gis nga yi nga xam ne mooy. jaarukaay gi ñuy jaarale xaalis nga xam ne man nga cee fay say facture courant fay lépp man ngeen koo jaarale ca loola bu bu di nekkoon ca Tambacounda soxla mën na leen na fay xaalis tànkam dafi tegu man ngeen koo jëlit jëlam leen laaj lépp yëppul ko ko transport bi yëpp génn ci te moom it fa mu toog dafa jóg loolu ay xeeti liggéey la yoo xam ne yéene naa leen lool ngeen taxaw ci bu baax a baax a baax a baax ndax bu ngeen ci taxawee rek da ngeen ci gis résultat muy diw gi machine ni segal yi ak jënd gerte di ko segal ak ku am gerte sax ñëw bëgg a segallu ah ngeen segalal ko ngeen jël ca seeni intérêt la ngeen di la ngeen koy fayu ngeen fey ko ca su ko defee loolu daal bu ngeen ko defee yaakaar naa ne ngeen ko dawalee ab diir da ngeen xam ne yëmut ak taxaw di laaj walla taxaw di xaar ndax laaj metti na te nit ki lu ko découragé loo dafa yomb ndax am na ci ñooñ toujours seen yitte mooy jóg rek di yàq luñ ko tudde tudde sëñ Tuubaa rek amuñu ragalu mën caa dellu gannaaw fokk ñu dem taxaw wéet ak nit ñi walla ñu wax ca kaw mën naa doon nag ko ne koo xam ne si moom amul intérêt ci li ngeen di def la liggéeyal sëñ Tuubaa ñoru ko ñooñu bu ngeen leen sóoraale rek da ngeen mën a taxawal seeni projet te xam na projet boobu nag bu ngeen ko taxawlee foo ko ngeen jànkoonte ci ak ay coono coono moom ku leen wax ne du ngeen ko ci am naru leen a jàppale coono moom ku leen wax du ngeen ko ci am awul yoonu jàppale leen te it waxu leen dëgg ka dëgg ndax xaalis moom fu muy génn rek seytaane recruté ay nitam ñu topp ca coow yaag tuumalante yaag yàqantem dermaag liggéeyante baag yooyu yépp la ci am waaye loolu lépp yéen yàlla dina leen ci musal ci barkib sëñ Tuubaa ndax sëñ bi ñaan na ci dëkk bi li ñaan ba pare saytaane amatul ci moom aw yoon kon daal loolu war ngeen cee taxaw daar daar bu leen fàtte it la ma leen waxoon ne da ngeen ko ci boole lu mel na ay mbokk ak dugub ak basaab daqaar lépp luy meññ ci garab te ñu koy teg ci marché bi jaay na ngeen fexe ba am ci seeni tonnage teg da ngeen dem ba di liggéeyloo nit ñi ma kenn duutu am jot ci sa bopp te kenn ku ne la nga war am da ko war a am te boo ko amee rek daal di nekk nit koo xam ne sam xel dana dal te danga mën a jaamu yàlla te jaamu yàlla boo ko defee ci ni ko yàlla santaane def ko ci xel mu dala ko bëgg ak yéene da ngay daal di nekk jullit ance kon loolu bëgg naa ngeen dugal ko ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy defal Touba te waxtu jot ngeen am yéene yóbbu dëkk bi mu mel ne dëkk yi gën a kawe ci kaw àddina seen taxawaay gis nañ ko ci wàllu assainissement bi wallahi nasim képp koy dox ci dëkk bi xam ne gàcce ngalam boo demee ko tokkaru sëñ Cheikh bee nam daan taa def ngeen ci yitte ba tawatul ak barab yu bari yu ne ci dëkk bi yooyu képp ku dox ba yem ci barab rek si ab xelam du dem ci maire du dem ci état ci Touba ca kanam rek lay xalaat na ngeen xam ne daal bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgul Touba ci boppam jox nañ leen lépp te yaakaar yi ci yéen ci yéen la ko la ko yàlla jaarale ci seen digg ak nit ñi te sëñ Touba gis na loolu yëg na loolu ndax xam na ko moom ba noppi Touba jamono bu nekk sëñ bi xam na ni ko yàlla yi melal ci jamono bu nekk ak lam ca war a génnee ak lam war a wane ci may suñ borom yi ndax du jeex mukk loola nag gis na ne lii may wax lépp ngi ci biir bu boobaa nag Touba indépendance bi mu njëkk am senegal da koy booleeg autonome boppam nga xam ne ni sëñ bi wéete woon ci du dem ci kenn di ko di sox wala mu dem ci kenn di am lu mu yaakaar ci moom loola tuubaa gii da koy mel ci réew mi mel ko ci bitim réew tuubaa kay kon nit yi ñëw ci dëkk bi bëgg fee xam diine xam ko am lu ko fi lënt ñu leeral ko bëgg fi mu am ko ko defee nag àjjana ji sëñ Tuubaa waxoon ne nag képp ku fi nekk te sax ci ndigal yi muy lii ma la digal bu boobaa Tuubaa àjjana lay doon ci kon bu boobaa moom confirmation bi dañ ci teg suñu bët ku ci nekk boo faatoo ci jamono jooju wala yàlla yóbboo àjjana du wuti ak Tuuba kon maa ngi leen koy dénk bépp barabu liggéeyukaay boo xam ne islaam téréwu na ngeen ci dugal seen loxo barab boo xam ne ci islaam téréwu jullit liggéey na ngeen ci dugal seen loxo fi mu ne li may wax lépp fi mu ne nii ay barabu wutukaayu lu lew la buñ paree nag wàllu organisation ci niñ koy organiser ba kenn ku nekk secteur ba ngay liggéey la nga fa soxla ñu daal tee taxaw boroomi xam-xam taxaw ñu daal di koy def loola lépp di ko gun ci xëy na sax mën naa ñëw projet màggal ndax yëf yi daal gudd waaye wutukaay bi nga xam ne <laughs> moom la ñuy wutee <laughs> alal ju leew ngir mën a liggéey ak organiser wu ci jamono jooju projet boobu képp ci laa nekk guddi ak bëccëg di ci wax waaye xam leen ne daal ñi nga xam ne ñoo yore lu machine diw yi di tegal am na ci ñoo xam ne tabaarkal la suñ borom ngi leen di wërsëgal te kenn nit képp lañu doon mu ngeen dee mbooloo nag da ngeen koy dàq da am machine yu moderne yoo xam ne waxuma Tuubaa waaye réew mi sax yéen leen di fournil diw diw goo xam ne si diir si ko wuti mukk ci bitim réew di ko teg ci bato di indi di jaay produit daal Madda in rek ngay gis Madda in Touba Madda in Touba moom ngay gis ci bépp produit boo xam ne nit da koy jëfandikoo kon daal lii mooy la xam ne moo occupé ñaar fukkeelu waxtaan bi ak juróom-ñaar xëy na bu demee ba ci ñaar fukki juróom-ñett bi danañ am beneen projet bu ñu la waaye ngeen xam ne defar rek lañ ci jublu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen